أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci téere bi di buluux almaram ñu toll ci baabul aaniya tey ñu war a jël xadiisu abi taalaba alxusani radiyallahu anhu wa ardaahu qultu ya rasul allah inna bi ardi qawmin ahli alkitab أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه حديث bi ñuy jël ba tey mu ngi wax ci ndab waxoon nañu ci date fi passé lan mooy ndab lan lañ war a jàppee lan lañ war a sangoo lan lañ war a jëfandikoo ci sunu jaamukaayu yàlla ci lekk ak naan ba tey ñoo ngi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñu leeralal kenn ci sahaaba yi nga xam ne ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku tudd abi saalaba dafa laaj yonent bi aw laaj mu ne wax naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñun de dañuy tukki léeg-léeg ñu génn sunu dëkk dem ci yeneen i gox yoo xam ne ña fa nekk ñun ak ñoom duñu bokk diine ndax ñoom ci waa ahlul kitaab lañuy bokk inna bi ardi qawmin ahlil kitaab léeg-léeg ñu dem ci suuf soo xam ne trottoir boo xam ne ña fa nekk ay ahlul kitaab lañ xam ngeen ahlul kitaab mooy ahlul kitaab mooy yahudi ak nasaraan yi ñooñu la ñuy wooye ahlul kitaab mu ne afa naakulu fi aaniyatihim ndax su boobaa ñun mën na noo lekk ci seeni ndab bu nu defalee lekk ci seeni ndab wala ñu dem ci seeni restaurant ñuy jaay lekk wala ñu yakkal ñu wala ñu dugg seen kër ci waxtu lekk ñu ne ñu kaay leen lekk afa naakulu fi aaniyatihim ndax ñun su boobaa mën na noo lekk ci seeni ndab fii ci sama téere 24 xaala yonent bi ne ko laa taakulu fiiha déedéet bu leen ci lekk leen ci lekk de illa lu dul an laa tajidu xayra lu dul ngeen baña am lu dul ngeen baña am lu dul ndab loola lu dul ngeen baña am lu dul ndab yooyu su boobaa faxsiluha raxas leen ko wa kulu fiha ngeen lekk ci hadis bi mutafaqun alayhi la kon mun ñëwee ci njàngale no hadis bi danañ fekk lu ñuy njëkk a jële ci hadis bi mooy lan la ñuy njëkk a jële ci hadis bi dama leen di laaj xanaa déggu leen yax yi ma ko firee acca bismillah lan la ñuy njëkk a jëlee ci hadis bi mën nañoo dem ci dëkku ahlu kitaab lu tax waa ji dafa laaj inna bi ardi qawmin ahlal kitaab ñun dañuy tukki di dem réewu tubaab ak réewu yahudi ak nasaraani boo raamoon yooyu naan leen déedéet bu leen dem yonent bi noppi ñaareel bi mu ne ko afa naakulu fi aaniyatihim ndax mën na noo lekke seeni ndab des na foofu beneen question mooy ah lekk gi dagan na ah afa naakulu fi aaniyatihim ndax mën na noo lekk seeni ndab ah léegi lekk bi comme suñu lekk yi la du mbaam xuux du du yu araam yenent bi ne ko laa taakulu fiha bu leen lekk ca ndab ya mais waxul bu leen lekk lekk bi lan la wax bu leen lekk ndab li bu leen lekk ci ndab li illa lu dul an laa tajidu xayraha lu dul ngeen am leneen lu dul loolu su boobaa faxsiluha na ngeen ko raxas wa kulu fiha ngeen lekk ci njàngale yi ñu jëlee ci hadis bi mbokk yi bu ci njëkk mooy isticmaalu awaanil kufaar wal mushrikin jëfandikoo ndabal jël kaame bi jëfandikoo ndabal yéeféer yi ak bokkaalekat yi fa isticmaalu awaanil kufaar jëfandikoo ndabal yéeféer yi jaa'izatun dagan na li nusuusin kasira ndax ay texte yu bari ñoo ci ñëw texte yooyu dallat day wone ala dalika ne loolu ñun mën nañoo jëfandikoo ndabal ñi ñu bokkalul diine waaye jëfandikoo googu yépp nag isa xalaba ala zann bu nu laa wuuree ne ndab li laab na nun wóor ne laab na de ñu doog koo jëfandikoo an haula il kuffar ndax yéeféer yooyu yashrabuna fiha alxamr wa yadauna fiha alxinzir xam ngeen ne tey bu fekkoon ne verre la waa ji verre bi mu ci naa ne sàngara wala ndab la ndab loolu wala bool la wala cin la cin boobu mu ciy toggee yàpp mbaam xuux après nga ñëw bëgg a naan mu jox la verre boobu te mu leer la ne waa ji verre bi mu laabal démb wala barki démb wala xam nga ne moom lay naanee sàngara wala cin bi xam nga ne xam nga ne kii day lekk mbaam xuux te xam nga ne cin bi la koy toggee léegi loolu loo ci war te gis ngeen graisse mbaam xuux ak yaafu mbaam xuux suñ ko toggee ci cin ñu yàgg koo toggee ci cin cin loolu même buñ ko raxasee dana néew ñu togg ci ba graisse mbaam xuux bi du dem ci lekk biñ ci mujjee def loolu moo tax yéen lenn saa yi ñuy tere nit ñi dem jullit yi ñuy lekk ci hôtel yi ndax xëy na yenn saa yi ñu ne la yow jullit nga xam nañ ne yow doo lekk yàpp mbaam xuux xam nañ ko waaye ñiy togg di saaf yàpp bi yàpp ginaar beeg yàpp xar beeg yàpp nag beeg yàpp mbaam xuux bi ci benn ci benn cin bi ci benn palaat bi ci benn diwlin bi nekk ci gaz bi dañuy dugal rek di génne bu ñor ñu teg de côté gis est-ce que dégg ngeen li mu wax yàpp mbaam xuux bi bu ñu ko yaafar bu ñu ko saafandoog yàpp nag bi say la ca mbaam xuux bi dem na ci nag bi ah dal na la
mais ba ma ko commencé rek dama jóg demaat restaurant ma ne yéen ban façon yàpp ngeen ma jox ñu ne ma yàpp nag la. waaw lii yorul buur nag buur nag effectivement.
noonu lañ ko noonu la ñuy def benn dëwlin bi lañ koy saafee. moo tax moo tax rapidement yow nga jàpp ne lekk naa yàpp nag fekk yàpp mbaam xuux la nga lekk parce que ci dëwlin bi lañ ko saafee ginaar gi ci dëwlin bi lañ ko saafee. loolu moo tax même bu fekkee ne loolu am na boroom xam-xam yi li ñuy gën a bëgg mooy cin jooju boo ko raxasee ba mu set nga teg ko ci safara si bu tàngee da ngay gis graisse bi wàcc nga évacuer ko raxas ko après daal di daal koy utiliser bu fekkee amoo li loolu dul moom bu fekkee kaas boobu la aussi nga raxas ko ba mu set nga doog cee naan ndax ñoom dañuy naan sàngara te ñun duñ naan sàngara dañuy lekk mbaam xuux ñun duñ lekk mbaam xuux su fekkee leer na leen daal kii moom def ko cee jëfandikoo bul ko lekk mukk lu dul nga raxas ko illa baada alxasli dégg nga de mu ne lam tustaamal awanihim illa baada alxasli seen jëf seen bagage yooyu seen jumtukaay yooyu kenn di ko utiliser lu dul ginnaaw buñ ko raxasee قال الموفق رحمه الله المشركون على دربين أهل الكتاب وغيرهم mu ne ñooñu ñuy wax nee na ñaari misaal kese lañ ciy joxe dafa am ahlul kitaab ak ñu dul ahlul kitaab yii fiir yi ñaari xeet dong lañ daf ci am ñoo xam ne ahlul kitaab lañ am ñoo xam ne duñu ahlul kitaab mu ne bu fekkee ahlul kitaab yi la yu baaxu ak la taamihim ñooñu day lekk seen lekk dagan na wa sharaabihim naan seen naan dagan na wal aklu fi aaniyatihim lekk ci seeni ndab dagan na waaye maa lam yatahaqqaq najasatiha fekk fekk fekk ndab loolu leer na nu wóor na nu ne sobe nekku ci bu nu leeree ne sobe ngi ci ñun lu ñuy def dañ koy raxas ba mu set ñu raxas ko bu fekkee nag amul luñ ko raxasee mun nu koo setal duñ ci lekk قال ابن أقيل لا تختلف الروايات في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم mu ne sëriñ bi nee na kenn wutewul benn riwaaya bu rot ñëwul muy araamal ñu jëfandikoo ñoom seeni ndab lu dul suñu ñàkkee koo setal buñ ko mënee setal ñu utiliser ko buñ ko mënul setal ñu bàyyi kook ñoom ndax sunu borom subhanahu wa taala jàngeen ci quran mu ne wa taamu alladina utul kitaaba xilun lakum lekk yi nga xam ne dañoo wàcc ci ñoom ay téere dagan na ci yéen mu ne jëlee nañ ci yonente bi alayhi salatu wasalaam adaafahu yahudi bi xubsin jàngeen yonente bi alayhi salatu wasalaam am na benn yahud bu ko musa daal di koy ganale mburu ak la ca aju ca mburu ma xam ngeen yonent bi lekk na lekk na yàpp yàpp xar pooju xar bu ñu bu ñu bu ñu posone kan ma koy ndiloon yahud yahud moo moo moo moo reyoon xar daal di dagg pooj bi def ci poson lakk ba mu ñor def ci poson indi yonent bi ci sukuraatu yonent bi sax sentir na poison bi sentir na ko ci sukuraatam mu naan Aïcha maa ngi su maa ngi sentir poison bi ma lekkoon ci pooju xaru ndaw sa yahud bi kon loolu lu mu lay won mooy ñun mën na noo lekk seen lekk waaye seen lekk bu ñu koy lekk day fekk day fekk mu laab waaye day fekk mu dëppoo ak ñun lu nuy lekk dañuy lekk xar ñoom dañuy lekk xar dañuy lekk nag ñoom dañuy lekk nag waaye bu nu indilee ci loo ñoom seen lekk loo xam ne ñun duñ ko lekk wala ñu indil ñu loo xam ne leer nan ne lii ñun buñ ko toggoon guu bi du mel nii kon ñun daf ñuy leer na ñoom am na luñ ci def léeg-léeg seeni dañuy def vin ci ngalax yi moo tax ñi bëgg ngalax nga gis ay jullit yuy xar ut xarit ndax ngalax waaw bëgg a lekk ngalax yow kay bu la jaralee noonu dem nga wut dugub dugub la rek ak ak tiga dégg ak buy nga defar sa ngalaxu bopp mais dafa jar ut ut xarit ah pour ñu yekkal la ngalax kese sama copain chrétien bi quoi dina ma indil ngalax jaru ko di ba pare même diine christianisme reconnaître ngalax est xam ngeen loolu ngalax Sénégal dong la am ci chrétien Sénégal ñoo koy def soo demoon chrétien Mali xamuñu ko xamuñu ko de soo demoon chrétien wu Rome xamuñu ngalax soo leen ne mais jour tey bii ngalax ngeen war a togg ñu ne luy loolu kon kay bu fekkee ne ñoom ci seen diine sax bidaa la ñun julli julli ci suñu yoon te vraiment di nga sentir julli ñi ci faiblesse bu ñu am ci affaire yooyu waaw ak yitteel gi leen lekk yooyu yitteel loolu kay ñun ñun ñoo ko moom dagan na ci ñun soo ko bëggee ba mu jaral la noonu yaa ak sa njaboot jarul ñu la ci yekkal parce que xamoo luñ ci def xamoo ko de xamoo ndax am toqal nañ ci vin xamoo ndax xamoo ndax xamoo kon bañ koo lekk sax nag moo gën waaw moo gën moo gën a wóor waaw léeg-léeg ñu lay wan ne ñun defuñ ci dara nangam ak nangam ak nangam ak nangam waaye daal jamono bi fi mu toll tey mooy tandi ku baax na waaw mooy tandi ku baax na bu baax a baax mooy tandi ku baax na mbokk yi jële nañ ci beneen riwaaya boo xam ne Omar ibn Khattab tawadda Omar min jurrati nasrani Omar moom jàpp na ci mbuus ngeen koy wax mooy der yooyu ñu wulli te ñu ciy def ndox Omar jàpp na ci benn boo xamante ne ki ko moomoon nasaraan la yonent bi alayhi salaatu salaam dina ñëw ci xadis yi di ñëwaat yonent bi jàpp na ci ndabal mushrika kon dagan na ñu jëfandikoo bagage yi waaye bu nu leeree ne sobe nekku ci mu ne waxal yu kurax lahu istimaalu awaanihi mu ne ndax ñii ñoom dagan na ñu jëfandikoo ndax sib nañ ko wala dafa dagan ñu jëfandikoo seeni ndab mu ne ñenn ñi ahaduhuma la yukrah wa saani yukrah mu ne ñu njëkk ñii ñu doon wax mu ne ñooñu sibuñu ko ñeneen ñi ci suuf nag mu ne sib nañ ko looloo ñëw ci xadisu abi saalaba bi mu ne laaj naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñun dañuy tukki di dem ci dëkku ahlul kitaab yi ndax ñu lekk ci seeni ndab yonente bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam bu leen ci lekk lu dul ngeen ñàkk am leneen lu dul moom su ngeen amul leneen lu dul moom utiliser leen ko su ngeen ko amee su ngeen amul balaa ngeen ko utiliser kon na ngeen ko raxas ba mu set ngeen lekk ci waaw mu ne ñooñu ñuy wax nag ne seen jëfandikoo seeni ndab dañ koo sib ñoo ñooy ubaratul awsaan ñuy jaamu xërëm ak majuus ñii ñu jaamu safara mu ne ñii moom seeni bagage jëfandikoo ko moom ëpp na lu tax ñii dañuy lekk médd daanaka yenn saa yi du ñu rey comme ñee nag dañuy rey ahlul kitaab ñoom dañuy rey nit ñii nag du ñu rey mun nañu xëy sax fekk xar mu dee ci biir gétt gi ñu génne fees lekk am na ci ñoo xam ne duñ dindi sax der dañuy tàngal ndox ba mu tàng rek sotti ci kaw der bi jël seeni rasoir wala seeni paaka xoos kawar gi yëpp daal di dañ ñu lekk leen dara lañ ci dul sànni ñu mel noonu nag lekk ci seeni ndab dañ kaa sib ndax benn dañuy jaamu xërëm du ñu rendi ñaar ay majuus lañ dañuy jaamu jant wala ñu jaamu safara mu ne bu ñëwee ci seeni àtte yére fa hukmu siyaabuhum hukmu ahlu zimma wa awaanihim aydan mu ne seeni yére tamit kazalik looloo tax gis nga ñun fii comme dañoo nekk pays yoo xam ne pays pays sous-développé la yenn saa yi ñu jaay ñu ay yére wala ñu may ñu ay doon yoo xamante ne yére yi fu mu jógee dañ ko takk rek daf ko ci ay bal indil ñu ko yére yu mel noonu bu ci nit jotee muy yére yi jullit war a sol balaa nga koy sol man nga ko fóot man nga ko fóot li nga war a njëkk a def mooy bu ñëwee nga teg ko ci naaj bi deuxième bi mooy nga fóot ko waaw waroo jël yére bi rek sol ko xam nga ñoom duñu sangu set deuxième mooy bu ñu dem wanag duñu laabu bu ñuy tuur ndox duñu wisu yére boobu ñëw nag nag nga daal di koy jël sol ko jullee ko wala nga jaamu ci yàlla li muy tekki mooy sa jaamu yàlla boobu yàlla nangu kon yére bi na nga ko utiliser ci wàllu set ba mu set nga dog koo jaamoo yàlla subhanahu wa taala mu ne laa yustacmal ma stacmalahu min aaniyatihim li anna awaanihim laa taxlu min atamihim wa zabaihim li tax mu ne waruñoo jëfandikoo seeni ndab ak seeni bagage mu ne ndax seeni ndab ñoom ya ñuy lekk midd la comme maanaa la ñuy lekk midd la te midd yi ci ndab yooyu lañ koy toggee kon ndab yooyu buñ la ko joxee nga togg ci daanaka xet ga nekkoon fee rek moo ci ñëwaat même ci ñun fii sax am nañu ñun ay yu ñuy lekk wala yu ñuy baxal wala yu ñuy naan boo ko jëloon tey lu mel ne warga nga jël ko nga jël beneen baraada boo xam ne da nga ciy def café saaf misaal baraada boo xam ne togg nga ci cinq ans café saaf un jour nga bëgg ataaya nga ñëw jël warga bi toog ko ci warga boobu lu muy saf ah léegi nag bu fekkee cin bi togg nañ ci cinq ans yàpp mbaam xuux ñu abal la ko tey nga togg ci yàpp looy sentir ah yàpp mbaam xuux bu fekkee verre bi waa ji naan na ci sàngara deux ans mu abal la ko tey nga bëgg yee def kinkiliba wala nga def ci boisson naan ah looy yëg kon foog cafka biñ ko jël ci looloo tax yonent bi saa salaam ne bu ñu koy utiliser waaye su fekkee mënuñoo am leneen ñu raxas ko ba mu set ba mu wóor na mu set na ñu doog koo jëfandikoo dégg nga mbokk bi léegi léegi li mu wax nee na jaay nañ ko yàpp waaye ba mu ko lekkee mu sentir ne lii du yàpp nag mu dem ci ñoom wax leen ko ñu ne ko yàpp nag la waaye effectivement fañ koy saafee moo nekk benn toggukaay parce que ñoom mënuñ fay nekk naan pala cin bii cinu cinu jullit la cin bii cinu yéeféer la wala cin bii cinu yàpp la cin bii cinu mbaam xuux la cin bii cinu déedéet moom day jël rek di tëmbal bu ñoree ñu rek teggi teg fële nee na su ko defee mooy lekkoo ci yàpp bi waaye naan nga ci ñeex mi waaw foog nga mu saf ci yow gis nga moo tax jullit yi tey pour ñu mucc dëgg-dëgg foog ñu am seeni yëfi bopp même ci rendi bi sax rendi da ngay gis ñoo xamante ne bu ñuy rendi la ilaha illa seetaan naa fan yi Facebook ay nit yoo xamante ne dañuy rendi ay xar ak ay xaj ak ay mbaam mais benn waay rek moo taxaw yor jaasi dañ koy sànni benn xar rek mu daanu rek mu dagg bopp bi moom daal dafa taxaw rek lu luñ teg ci kanam rek mu dóor bopp bi deñ xoola xoola rey bu bon boobu booru booru siin dëkk yooyu la ñu gàtt ñooñu ay xajak lépp lañuy la ñuy lekk lépp la ñuy rey te rey bu bon lañ koy rey te xam ngeen ne diine lislaam moom diine bu silwise la diine bu set la yonent bi ne bu ngeen di rey sax na ngeen ko rafetal maanaam ci diine yi li lislaam di di reyee amul kenn ku koy reyee bu ngeen demee Europe ay machine ñooy rey même fii daral machine ñooy rey nag yi ak xar yi ndax lu tax dañ lay tegal sans xar ñu ne nañ ko rey nga nekk fi daan bu ma koy rendi day yéex mais bu dee lislaam la nag moom du yéex ndax jaamu yàlla la da ngay jël sa temps ba pare def sa asgar doog a rendi li ngay rendi te buñ koy rendi dañ ko war a téye ñàdd ko mais gars yi fii daanaka benn machine la ñuy jël dañ koy dóor ci bopp bi rek mu mu dof affaire yi ne tël bopp bi dagg ko machine bi ne kil tànk yi daal di koy yóbbu ci kaw futti der bi sànni ko fële daanaka yow soo fa nekkee lu mel noonu bu ci nit yàggee liggéey bu yàggee xam nga lu mu koy jural xol bu wow loolu moo tax ay ñii liggéey seeraas ni pour ñu jam nit wala ñu rey nit du dara parce que deret bi nu ñu koy gisee moo bon day fu nekk lay lay lay tax yaa naka ku fay liggéey boo ko xoolee yenn saa yi nii ak ni ko deret ji takkee ak paaka beeg yaram bi sa yaram day daw loolu nag du lislaam lislaam lépp dafa rafet yonent bi nee na même bu ngeen di rendi na ngeen rafetal rendi bi moo tax gis nga tabaski da ngay gas bax jubal li ngay rendi penku ñàdd ko tudd yàlla das paaka ba mu ñëw tudd yàlla daal di koy rendi téye ko ba mu sedd nga doog a dem ci beneen te dañoo bëgg booy rendi fekkee ne ñaari xar la wala ñett nga nëbb ko nga ren njëkk rendi bi nëbb yële après indi beneen rendi indi benn parce que dafa du du diine ngay rendi ñetti xarib ñetti xarib taxaw di xool bu doon ay nit yi ñuy rendi la ki- ñi- ñuy njëkke kenn ki ñeneen ñaar ñi taxaw ko ñu xam ne fii lañ jëm lu ñuy def danañ puub balaa ngay yegg si waaw danañ puub seen tubéy balaa ñuy ñëw ci ñoom waaw voilà kon nag loolu ab jullit du ko def islaam dafa rafet ñun ak ñeneen ñi bokkuñu invité nañ ma ci benn yëfu diine ma dem toog nii ma gis benn waay yor béy yëkkati ko di ko yóbbu keneen yor paak topp ci ginnaaw ñu ne tëll ci rek daje kenn ko ne yéen fu ngeen jëmee béy bi mu ne alaxira wala xoola wax jooju waaye dañ laaj fu ngeen jëmee béy bi mu ne alaxira est-ce que loolu moo doon tontu bi doon tontu maanaam jullit warul sadik jullit warul sadik sadik du du melokaanu jullit jullit dafa war a am yërmande jullit dafa war a ëmb xolam yërmande lépp nag ci lépp xool yonente bi am na ko amoon picc picc bu yonente bi doon nuyu waa ji daan ko naka sa picc mi xool Abu Hurayra da moo tax ñu toog Abu Hurayra yonente bi moo ko tuddee noonu ndax yërmande gu mu amoon di jox muusi ñii naan meew di lekk kon jullit jullit yi noonu lañ leen yonent bi yare woon mais yonent bi yarewu leen comme léegi nii li ñuy toppandoo nii mbokk yi yonent bi imam batul xataab yi nee na hukmu ahlul kitaab siyaabuhum wa awanihim tahir mubaax al istimaal bu fekkee ahlul kitaab la nag seen i yére seen i ndab dagan nañu utiliser ko comme li ñu waxoon sànq mooy nañ ko fóot ba pare doog ko sol wala ñu raxas ko doog ko togge wala ñu raxas ko doog cee naan bu ñu wóoree ne sobee ngi ci boo xam ne mënut a dañ ñu bàyyi ko ak ñoom bu sobee mu ne dañ ñu raxas ko utiliser ko nee na loolu mooy mazhabu imaamu shafii ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tawaddaa min mazada mushrika muttafaqun alayhi yonent bi jàppee na ci ndabal bokkaalekat bu jigéen bu ñëwee di tënk darsu tey dinañ gis anna isticmaalu hadihi al awaani al mas'ul anha jaiz ndab yi jëfandikoo ko dagan na fa in ulima aw xuliba ala zann bu nu leeree ne sunu njort lim ñu jox mooy bool bi kat set na ñu utiliser ko ah sunu njort sunu yóbbee ne ndab lii laab na yére bi set na sijaada bi baax na ñu julli ci ndab yére bi set na sol ko julli ndab lii laab na ñu naan ci walla ñu lekk ci mu ngoog mu ne kawnuhum yastaamiluunaha fi najasaat ndax ñoom léeg-léeg dañ koy dugal ci seeni sobe kon ñun buñ koy utiliser nañ ko utiliser ci raxas ko ba pare doog koy jëfandikoo walhaalu hadihi maa wujudi gayriha makruh nee na bu dee ci beneen nag façon bi nga xam ne ñeneen ñi la ñooñu jëfandikoo seen ndab sib nañ ko jullit bi daal mu dem uti leneen jëfandikoo ko moo gën kon muy jëfandikoo loolu kon ñaari ndab la ndab loo xamante ne mën nga kaa utiliser waaye ginnaaw boo ko raxasee ak ndab loo xam ne nag moom dañoo sib nga utiliser ko parce que ñooñu du ñooy ahlul kitaab kon loolu mooy sunu darsu tey bu dee ay njumteen ci ñu ngi koy jégalu sunu borom di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu nangul nu ko nangul leen asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na ay question incha allah